moo Motsekiri de la Guinée déglu leen bu baax benn ministre bu nekkoon ci Alpha Condé benn ministre waxuma ministre yépp de kii ngeen di gis mu ngi wuyoo ci turu Mohamed jaane moom la ñu dénkoon ministre de la défense chargé des affaires présidentielles docteur Mohamed jaane dañoo dugg këram fekk ci benn cave cave mooy néegu suuf wala jëlëg ba wanak wolof di ko lépp naan wanag wa Nous faisons 60 millions de dollars. Madame, 600 milliards de francs guinéens. Robet, robet. Nous faisons 75,8 kg or 22 carats. 40 milliards de francs guinéens. Nous faisons 17 diamants de 2 carats. 10 milliards de francs guinéens. Nous faisons que nous avons un pays qui est un pays qui est un fait 47 cœurs, 47 villas. Nous avons un pays qui est Kamayen et Kabelen. 53 immeubles am ci bir guinée 35 yi ñu conakry 4 yi ñu ngi 7 yi ñu kanka 3 yi ñu ngi labé yenen 4 yi dess nous avons un coro coré. Je ne sais pas si je suis un compliqué. Mom, temps. Nous suis un 18 autos, You expect mais auto de luxe. 18 voitures luxueuses et neuves. 75 terres, madame, ay pack yu mu amal bopam ci bir Conakry. Am 1500 hectares you am ci forestia. Forêt Karia. 2000 hectares yumu am kanka. 7 hôtels yumu momal bopam. 25 fours yuy defar mburu. 7 usines yuy defar bouteille ndox. Deglu len ben ministre la len di wax li 16 fermes avicoles manam beurep yi ñu yare ginar yek yenn yenn yefi ferme avicole difa bay yenn lujum yeex yoy 16 fermes avicoles manam ñaari millions 2 millions de poussins au total 5 usines de production de fruits naturels de jus de jus de fruits naturels 5 usines la ci yor maman partenariat société sociétés yi nek ci réew mi société Yangini, ngi BG, CBG Orange Guinée la CAG la SMD avec la SAG. 13 concessions minières à Bokeh, Dingirai et Sougiri. Madame concession minière mooy fi nga xam des ressources naturelles de génn moom moom moom 13 ci Birguine Guinée bu dee séddale bi départ dans les business d'importation de carburant avec plus de 70 camions citernes à travers le pays Madame carburant bi dougué Guinée ak ñukoy koy ci station mom 70 camions la ci amone mom kese mom ministre bobu am exclusivement manam li ñuy wax noix d'acajou xooxu der kese exclusivement mom rek mo amone opportunité ak priorité wu mën ko jënd ak diko jaay biir Guinée bañu calculer lepp dal ci koom-koom ba fekk kërëm les mën tek loxo ci ay documents ci ay luñu mëna japp konté ko wañi ko lepp na ci 1 milliard virgule 2 de dollars 1 milliard de dollars bir Guinée. <laughs> mané kañ lañuy def opération mais propre fi sénégal non sonuma sonu mané kañ lañuy def opération mais propre fi sénégal